الذي كونك لا اله الا الله لا اله الا الله الوف الخلق ما نافنا صفي الله مرحبا الوف الخلق ما نافنا صفي الله مرحبا لانت الخصر من كل مقوف القوس برام كونك لا اله الا الله لا اله شيخي بعيد انت الخصر مخوف القوس برام كولا كده إلا الله لا إله شيخي بعيد أنت لغصت من كل مخوف القوس برام كولا كده إلا الله لا إله إلا الله صقور القادس الآباد والأقوال برهما صقور القادس الآباد والأقوال برهما يلين الجنب بندا خليص القلب برام كولك لا إله إلا الله لا شيخي باي يليل الجن بلاغي غدا خليص القلب برام كولك لا إله إلا الله لا إله إلا الله يليل الجن بلاغي غدا خليص القلب برام كولك لا إله إلا الله لا Adam! الخلق آتاك سباب الكون بلا مكولك لا إله إلا الله لا إله شيخي ما إله الخلق آتاك سباب الكون بلا مكولك لا إله إلا الله لا إله شيخي ما إله الخلق أعطاك سباب الكون بلا مكولك لا إله إلا الله لا إله إلا الله لقد أوتي أوتيك كن فيكن فضل الله برحمة لقد أوتيك كن فيكن فضل الله برحمة سيكي باي يهيم في جبروتي كلا ملكوتي برامة ولد لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما حتى لكون بلا صوت سر الله برحمة ما حتى لكون بلا صوت لا إله إلا الله Allah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 ولتعطفي بنظرة تعطي لنا بالزفر أيها المسلمون الكرام نحييكم جميعا بتحية الإسلام ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبكي جلدي مبكي أدنى àdduna نيو كيف nuyu خامنة تيو نجي جوتاي بي di la nuyu ci sa jëmm di la nuyu ci sa tur di la nuyu ci sa maqaama ñu am mbégte bu baax lii nga xam ne defoon nañ ko daaw ñun ñëpp ñu teewe woon ko am ñeneen ñi ko wuute yàlla defal ñu xéewal ñu teewewaat ko xéewal gu rëy googu ñu ci sant yàlla bu baax gannaaw gi ñu ngi julli ci yonent sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne jootaay bu taaru bi bu rafet bi sallam moom lañ ko joxaat kon ñu ngi leen di dalalee ci loolu nga xam ne guddi na ba pare ñu bëgg a jublu ci programme bi nga xam ne moom lañ fi tënk ngir doxal ko ci li nga xam ne mooy cérémonie officielle xam naa ne comme niñ koy tàmbalee di saa su nekk ak niñ ko baaxooy ci pays bi dinañ tàmbalee ci ay ay alquran yi nga xam ne war nañ ko fee jàng te ñi koy jàng doon daara alquran Cheikh Ahmed Dame Ibrahim Niass ñoom ñoo ñuy jàngal lenn ci alquran iyyaka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 والليل إذا سجى Monsieur le représentant du Khalif international de la Faye de Tidjani, Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Sessène, Monsieur le maire de la commune de Sessène, Monsieur Abdoundour Faye, Monsieur Lahaj Omar député et maire de Tchadjaï, Monsieur le commandant de la brigade de la gendarmerie de Tchadjaï, Monsieur le commandant de la sous-brigade du service d'hygiène de Thiayaye, Madame le maire de la commune de Ndiaganyao, Dr Teningsen, directrice de l'Assange nationale de l'aquaculture du Sénégal, marraine de cet événement. Monsieur Abdou chef de service restauration de l'université Sin Saloum, El Ibrahim Agnès, parrain de cette cérémonie. Monsieur le président du comité de la Croix-Rouge, chères autorités administratives, religieuses et politiques, mesdames et messieurs, honorables invités, à vos désignations honorifiques et compétences, bonsoir. En cette 16e édition du Gamou annuel de Nyomar, nous vous souhaitons la bienvenue dans ce village saint où chrétiens et musulmans vivent en parfaite harmonie. Au sortir de ce mois béni de Ramadan, nous vous demandons tous pardon en vous accordant sans doute le nôtre au fond du cœur. Notre discours d'aujourd'hui va être orienté sur un homme dont les qualités sont connues de tous. Car un homme que nous, vous connaissez mieux que moi et que nous aimons tous, car c'est par lui que nous sommes réunis ici aujourd'hui. Je veux bien nommer notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui, Allah nous rappelle en quiconque espère en Allah au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Al-Ahzab, verset 21. Ô toi qui es la fontaine, les gens assoiffés accourent vers toi. Toi qui es l'océan béni des âmes assoiffées, toi qui es l'océan de la grâce d'Allah et le soleil du royaume spirituel de la beauté, tu as éclairé les ombres afin que j'aisse la lumière. Inspiré par ton amour, ô saint prophète, c'est avec les larmes aux yeux que les gens se rappellent de ta beauté. Leur cœur meurtri par leur éloignement de toi sans se séparer de toi d'une seule seconde. Si la grandeur du dessin, la petitesse des moyens et l'immensité du résultat sont les trois mesures du génie de l'homme, qui osera donc comparer humainement au grand homme de l'histoire moderne à Mohammed Celui qui a remis des armées, des législations, des empires, des peuples, des dynasties, des idées, des millions d'hommes sur un tiers du globe habité, mais aussi des âmes. Cela va sans dire que son savoir est transversal, donc recoupe tous les domaines tels que le droit, l'économie, la politique, la sociologie et tant d'autres. En parlant de droits et devoirs, sa compétence n'est plus à démontrer. Le prophète nous invite à maintenir des liens de parenté et le droit de voisinage, mais sans jamais écarter les droits des orphelins, car, dit-il, usurper la propriété d'un orphelin est un grand péché. Or, le caresser appelle beaucoup de récompenses spirituelles. De même, si la politique est définie comme l'art et la pratique de gouverner des sociétés, il vous convient alors de préciser que le prophète avait sa méthode de diriger et des connaissances parfaites de ses lois. Pour ce qui est de sa politique, le prophète Mohammed a instauré et mis en place un État pour le bien-être de tout le monde, sans distinction de race, de religion et d'origine. Il avait une politique différente de tous les autres systèmes politiques, notamment le capitalisme, le communisme et le prolétariat. Dans sa politique extérieure, on note la façon dont il traitait les États voisins et, comment il procédait, et comment il procédait à la gestion des conflits. Chers hommes politiques, pourquoi ne pas suivre ces enseignements de Mohammed Pourquoi devons-nous continuer à créer tout le temps des guerres fratricides Pourquoi s'insulter en tant qu'hommes religieux et parents Et encore pourquoi saccager ce qui nous appartient Pourquoi tant de haine dans un pays, tant loué par sa teranga aux yeux du monde Chers hommes politiques, on doit traiter tout le monde au même pied d'égalité, comme l'a si bien enseigné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le meilleur d'entre vous et le plus utile est le peuple Hadith. Donc, soyons conscients et luttons ensemble pour le développement de nos sociétés. Et comme vous le savez bien, la société ne peut fonctionner que sur la base de normes, donc le respect des institutions. Permettez-moi donc, dans cette perspective, de parler un peu sur la vie sociale du prophète Mohammed par le biais de la sociologie et son rapport avec la religion. Cette dernière crée un lien social et fournit une explication globale du monde. La sociologie des religions a pour but de saisir les moyens employés par celles-ci dans leur fonctionnement et leur transformation. Le prophète n'a jamais cessé d'étudier les relations sociales entre individus et groupes sociaux en tentant d'apporter des solutions aux différents conflits. Bref, nous pouvons dire que le prophète a appelé par une voix céleste à répandre parmi son peuple et même dans tout l'univers le message qu'on lui avait confié par le domaine de la foi, des responsabilités d'un homme d'État avec toutes les implications d'ordre politique, militaire et social. Il est le seul que Dieu, Dieu nous a désigné par repère. Dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi Mohammed. Allah vous aimera, alors et vous pardonnera vos péchés. Al-Imran, verset 31. Je ne saurais terminer sans remercier les habitants du village de Nyomar, hommes et femmes, jeunes et vieux, qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cette cérémonie. Nous remercions également tous les Moukadam ici présents aujourd'hui par le biais de Cheikh Ousmane Faye Khadimul ainsi que les présidents des différentes sections, sans oublier nos chers condisciples qui, ont, dignement travaillé pour le bon fonctionnement de ce programme. Que la paix soit avec vous. والصلاة والسلام في تسارف الأواني من زوات زاد تطرى نحو ما كفاني ثم آل وسهاب ذارم وسد الغواني ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد عني جميع الحاضرين الذين جاؤوا من أماكن الشتى نساء ورجالا أحييكم بأطيب تهية من سوء داء قلوبنا يؤوم إلى جناب حضرتكم الشامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إننا اليوم في غاية السرور وامتنان من هذه الجلسة الميمونة جلسة ذكرى حبيبنا وسفيعنا وقدوتنا سيدنا محمد أفضل خلق الله كلهم الذي ملأ الكون بنوره صلى الله عليه وسلم وزهد الله عز وجل بأخلاقه الحميدة فقال وإنك لعلى خلق عظيم فأمر المسلمين باقتداء به والتهلي بالأخلاق الحسنة حيث أخبره عليه اتصف رسول صلى الله عليه وسلم بالعديد من أخلاق الحسنة وصفات الحميدة الصدق صعد لرسوله صلى الله عليه وسلم جميع الناس بالصدق والأمانة لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلى وحي يوحى جعله هاديا مبشرا حيث نعترف على هذه الصفات القلقية والقلقية جما قال الشيخ الإسلام الحاج إبراهيم رضي الله عنه جمت قوارقه راقت قلائقه والقلق قالقه لولا مساه وكان صلى الله عليه وسلم رحيما بالناس أتى بالمشركين فقد كان يعفو عنهم وهذه مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم أو لقوله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلى رحمة للعالمين وما كانت رحمة متصلة بالقلب رسولنا الكريم عليه صلاة الله ثم سلامه حيث قال عن نفسه إني لم أبعث لعينا لعانا إنما بعثت رحمة وكان ملتهيا بالخلق الرحمة وقال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ولم يكن فسا غليظ الخلق بل كان رحيما عطوفا بالسقار والكبار وعلى عبد السواء دين قلبي دائما فقد وصفه الله سبحانه وتعالى بما ربحت من الله من نلت لهم ولو كان فصا غليظ القلب لكان لانفضوا حولك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفو ويعفو عن الناس خاصة على الأعداء أيز العفو المشركون في الفتح مكة الذين آذوه وقاتلوه فلما قدر عليهم عفى عنهم لهم ذلك وقال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء وهذا لم يحدث من قبل ولكن لم يكن رسول صلى الله عليه وسلم كذلك بل كان متوادعا يهب العفو والعصر رسول الله كان دائما للبصر كان مبتسما مبتبصرا على الدوام فكان له شهل الخلق لين كلام لا يقطع على أحد حديثه وكان دائما ما يرى صحابي الكرام ورسولنا مبتسما لكن محمد بشر وليس كالبشر صرف حقيقي وبتاع سماه حيث قال شيخ الاسلام الحاج ابراهيم رضي الله عنه يممت رسول الله تها مقدسا عن نداء وأدار أسدا مؤشسا رسول وأصل الناس ماء وجندل فلا أنس في ذاك الزمان مؤنسا تطور في الأطوار في كل هيكل وحتى بدا للناس قرما مقدسا ونذكر جميعا وعلى رأسهم قادم الأمة Cheikh Ousmane wa nasku tant bi sama kaddu tey nag eh, kaddu ngërmal lay doon rek kaddu sant yàlla ci xiwal bi ñu defal waaye kaddu sant yàlla aussi ci bés bu tëdd bi ci bés bu sell bi ñu nekk tey eh, ba gannaaw ba nga xam ne nag gërëm nañ comme occasion la dina am solo tuuti aussi ñu wax tuuti ci xadr bi nga xam ne fii moo ñu boole fii ñu ñëpp muy dayra sabilu salaam nekk dayra boo xam ne ci gàttal mu ngi dox ci njàngale yonent yaramaa sallallahu alayhi wa salaam fekk bési tey dañ koy jàngale yonent bi sallallahu alayhi wa salaam ci cérémonie officielle waaye ci gàmmu yëpp aussi discours yi ci jotu jaar yëpp aussi ñëpp dañ koy jàngale ci yonent yaramaa sallallahu alayhi wa salaam ñu xamal mbooloo mi dayre bi mu ngi dox guddi bëccëg ci loo xam ne loolu la yonent bi santaane loolu la gërëm euh, ma tudd tuuti aussi ci réalisation ba nga xam ne daye ba mu ngi koy béy ci l'islam waaye ci tariqa tijaan waaye aussi ci faydu bi waaye aussi ci mboolem société bi daayira Sabilu Salaam nekk daayira boo xam ne dafa sosu ci ndigal bu wër ba nga xam ne ku mag xutb bi Cheikh Ahmad Dam Ibrahima Niass moo ko sos daayira bi aussi di dox di namm jubal jaamu yépp ba tax mu ngi réaliser lu am solo ci dëkk bi di tabax ay école arabe di tabax ay juma waaye di former aussi ay borom xam-xam ndax tey nekk daayira boo xam ne mbooleem xam-xam rek am na fi daayira bi defar na ay sëriñ defar na ay muqaddam waaye defar na ay étudiant kon loolu dina am solo ñu xam ko ma bëgg a tudd tuuti ñaax sama mbokku taalibe yi taalibe yi waaye aussi ñaax bépp ko wax ashhadu an laa ilaaha illallah waaye aussi ñaax képp koo xam ne lu baax ñor na la daayira Sabilu Salaam ñu bàyyi ko xel ndax nekk na daayira boo xam ne dégg dëgg si neex yàlla kenn amul foo xam ne mën nga ko critiquer daayira bi nag aussi am na ay projet ginnaaw ba nga xam ne muy tabax ay école ay jumaa yooyu yëpp daayira bu léegi ci lancé boobu la nekk am na ay projet yoo xam ne ñu ci kanam may ñaax taal bi yëpp ci projet yooyu bokk na aussi institut Cheikh Mouhamadou Mahi Ibrahima Niass ba nga xam ne daaw fii la ñu posé woon première pierre bi un nekk institut boo xam ne il est en pour ñu bëgg taal bi yëpp def ci ite waaye jullit bi yëpp def ci ite waaye pay Maolana Cheikh Ibrahim Niass yëpp def ci ite ba balaa heure bi ñu mun ko tabax bokk na ci projet yi aussi daayira bi mu ngi tabax ay daara internat mën nañ joxe exemple internat Sabilu Salaam bu Seeseen mu nga xam ne ñooy élèves yooyu ñoo leen jàng fii sànq alquran loolu aussi projet la ci daayira bi waaye daayira bi mu ngi am ay projet di tabax ay jàkka ci village yo xamne war nañ jegem ci bir jegem wala ñu war ñoo mar mun nañ joxe exemple juma bu bu faw nga xamne ila ah, mu ngi ci construction mën nañ tuddu aussi jako ba nga xamne ne posé nañ ko faydaal waye mën nañ tuddu aussi keur Maulana Cheikh Ibrahim Niass ba nga xam ci njagañaam aussi mu ngi ci construction waye mën na tuddu aussi yu bari yoo xamne ne daayira boobu mu ngi ci yëngatu pour tabax ko ñuy ñaan ñepp ñu jàpp ci seen loxo ñëpp ñu bàyyi ci seen xel waaye aussi ba léegi daayira bi mu ngi lancé ay entreprise mun na joxe exemple DSTV muy daayira Sabilu Salaam télévision mu nga xam ne daayira bi sos na ko mu ci def ay jéego ñu ñaan képp koo xam ne taalibe nga bokk ci daayira bi wala julit nga aussi nga dugal ci sa sa loxo waaye daayira boobu aussi ba léegi mu ngi kër kër pour mun a amal boppam ay matériel ñoo xam ne matériel nécessaire lay doon mën nañ joxe exemple comme base bi ñu toog daayira bi soxla na ko ay seize sonorisation loolu lépp daayira bi soxla na ko te loolu ñun taal bi ñoo ko war a def ndax dëkk boo gis wala kër boo gis waa kër gi ñoo ko mën a defar comme maa ngi lancé taal bi yépp aussi ñu bàyyi ci xel ci projet daayira bi waa daayira bi aussi mu ngay lancé fond Sabilu Salam yaakaar naa lancé nañ ko ça fait léegi mu bëgg def deux chaque fin mois képp koo xam ne taaliba nga taaliba nga bokk ci daayira Sabilu Salaam nga mën a verser 1000 francs pour daayira bi mën a am ay fonds kon ñu ngi fàttali ñëpp aussi di ñaaxat ñëpp ñu gën def ci ite ndax mbooloo mi dëgg-dëgg suñu def li ñu jubloo rek def ci ite. léegi nag loolu yëpp soo ko tënkee lu mu lay jox mooy lan nga ci lan moo la ci war mooy nga fexe jàng Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nan la doon doxale lan la ci doon def. lum ci doon wax ak nan la ko doon saytoo ci li nga xamante ne moom moo ajj ajoo ci mbokk ak sàmm mbokk ak toppatoo mbokk kon jotaayu tey bii dafa war a commencé d'abord ci suñu toogaay war na mën a méngoo ak Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nan la ko bëggee nan la ko doon doxale ak nan la ko doon santaane ngir ñu mën ko def aussi foog ñu xam ko kon boroom xam-xam yi xam naa ne si kanam ñoom ñëpp danañ addu ñëw ci lu mel noonu suñu weesoo ci jotaay gi li may njëkk a ñëw mooy xëy na si kër yi ndax soo waxee kër la cay jiitu ci la sos société lan la mooy fexe ñu xam xëy na kër ga mooy góor la ak jigéen lañ cay tudd muy sëy su dee ci ku góor ki war na mën a xam kër gi nan la ko Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sance nu mu ko yore woon nam ca doon doxale suñu weesoo loolu dañuy dem xëy na ci bërëbu jàngukaay yi su dee si jàng am na lum ñu digal surtout si ndaw la ca jiitu ci ndaw mooy fexe wuti xam-xam ku am xam-xam yaru ku yaru baax ku baax jub te kon loolu lañ soxla ci société te loolu yëpp dafay delloowaat ci maxamam dafay delloowaat également ci ay qualité am da la fay delloowaat ci ay jikkoom ndax roy ko si ay jikkoom moom moo mën a tax yow ngay defar sa bopp ba tànk bo lépp loo xamante ne nas nga ko ci sa lamiñ ba nar koo wax rek la ngay njëkk a xalaat mooy nam ko doon waxee ak lam ca doon wax lam ca doon jublu kon loolu dina la tënk dina la dimbali dina ma la jàppale ba nga xam ne yow mii kat génnoo ci cercle bi nga xamante ne tracé na ko dugal ñu foofu ne li man kat nii laa doon doxale te yàlla subhanahu wa taala won ñu ko ne roy leen ko topp leen ko kon nga mën a xam ni mu daan doxalee nga doxale noonu su dee dañ ñëw ci xale yi xëy na léegi ñu nekk ci jamono bu jafe barki démb maa ngi koy wax benn élève mu nekk di jàng ma ne ko yow xam-xam ngay wut wala diplôme mu ne ma ñaari yëpp ma ne ko waa ñaari yëpp da baax na waaye dafa am ñu ci bëri fi mu nekk ni ci ndaw ñi li ci ëpp diplôme la ñuy wut koo ci wax lan la lay wax naa fexe ba am moyen kon xam-xam bi xëy na mën na laa ñàkk a yitteel soo amee moyen loo ci lu ciy topp examen jot na kon loolu ngay wax naa fexe ba admis ci examen bi léegi nag yow fi nga jaar yëpp ba yegg si ci diplôme fi nga jaar yëpp ba réussir concours fi nga jaar yëpp ba am liggéey est-ce que yow ragal yàllaa ngi ci est-ce que wut xam-xam bu doy ba tax bi mën a tax yow nga ragal yàlla moo ngi ci te ku ragalul yàlla dana jafe ca liggéey bi ñu la sant nga wàccoo ci ak sa borom wala nga wàccoo ci ak ki nga xamante ne moom moo moo la ko sant moo la ko moo lay jox liggéey boobu kon yooyu lu ñu mat a xool la beneen bi mooy ndaw li ñu soxla si moom ci sakku xam-xam mooy ndaw dafa war a nangu coono amul kenn koo xamante ne war ngaa mën a yaakaar ne war ngaa am xam-xam war ngaa mën a jàng te dañuy naan séeréer dañuy naan njëriñ gannaaw coono kon foog nga sonn ba pare balaa ngay xam te foog nga sonn également am xam balaa ngay mën a am kon yooyu moom moo ànd xam-xam xam-xam man-man ak am-am donc soo ko xoolee ni ñu ko tëgee ci ay baat ñoom ñoo dend ñoom ñoo ànd kon foog nga jaar si loolu. kon dem ba taxaw ci jamono joo xamante ne yow nanguwoo xiif nanguwoo coono nanguwoo dox xam-xam pour mu yomb la dana jafe te képp koo xamante ne xëy na nanguwoo coono pour nga jubali aussi dana jafe ndax nit foog mu ñemee weet foog mu ñemee aussi toroxlu mën a muñ parce que ñemee coono googu moom mooy tax nga mën a muñ. muñ gi nag dana aju ci nga muñ loo xamante ne moomoo ko nga muñ loo xamante ne daganu la nga muñ loo xamante ne lewu la te loolu coono rek moo la ko mën a may kon yonente bi sallallahu alayhi jàngal nañu loolu ñun ndaw ñu ñu war a xam loolu xam nuñ koy jëfee kon jotaayu tey ji Cheikh Ousmane tënkal nañu ko ba xëy na suñ ko yaatalee gën na mën a yaatu nii waaye comme dañu sant ñu tënk rek nañ ko tënk ba dem na ci xëy na sax ponk jaamu yàlla yi léeg-léeg nga gis nit mu nekk ci ba xëy na duñu wax pay bi mu ci doon xalaat dana ko am walla du ko am loolu xëy na yàlla rek moo ko moo ñu ko mën a moo ko moo ko mën a xam waaye gis naa ñoo xamante ne xëy na dem nañ ba makkatal mu karam di jàmbat coono naam xëy na coono gu jéggi dayo ba weesu li yaram attan mën nañ ko jàmbat waaye li ci aju ci war a sangu sangu woo li aju ci yow xëy na nga war a naan ndox mu neex wala nga ndox mu sedd amoo ko defe naa yooyu war nañ mën a éviter ba génn ci rajo ba di ko wax li tax su den damay misaal damay wax ne ajj màkka suñ ko doon nag dafay ne moom mooy stage yu dee donc stage yu dee ki ci nekk xam ne yow tànk bii nii nga séqi nii beneen boo ci jege rek ci biir ba mel nga ko teg soo ko xaymaa foofu kon coono goo daj fii nii rek jàpp nga ne lay nekk ngénneel ak lay nekk peyum yàlla moo ëpp téeméeri junni yoon ak coono gi te soo ko xalaatee lépp loo daj ci coono rek war na mën a oyof kon loolu dafay dellusiwaat li ma waxoon si ndaw ñi léegi ci nangoo coono nangoo coono googu xam coono ga lay jëriñ aussi loolu aussi baax na ci ba boobaa pay bi saa ko jotee doo ko natt xëy na ci ay ay matériel doo ko natt ci li ngay am nii parce que looloo gën a tuuti ci àddina kon la nga koy natt fa koy natt mooy nga xamante ne loola yàlla sant d'abord muy dund gi dund gi nag dafa am njeexintal te njeexintal ga pay gi ngay lig pay gi ngay yaakaar di ko liggéey ci àddina gannaaw dee rek nga ko mën a am te kon coono googu soo ko xalaatee ne gannaaw dee nga war a mën a fayu ko leneen li ci nekk rek dana oyof te ay meññeenteef lay nekk léegi suñ demee aussi ci domaine activité yi nga xamante ne moom la ñuy dund ndax àddina tënkoo na noo xamante ne euh, kenn ku nekk dafa am mission benn mission bi nga xamante ne moom la ñu am xëy na ci kaw suuf yàlla wax nañu ko waaye nag dafa am ay spécificité yoo xamante ne kenn ku nekk dafa am foo foo fa sa xam-xam màcc jëm wala noo bëgg a doxalee sa àdduna waaye loolu ak lum ci mën a nekk rek dafay ànd ak yow nga xool doxalin bi léegi suñ jëlee ci lu mel ni nguur léeg may wax nit ñi képp koo xamante ne war nga mën a doon bëgg nga doon chef d'état wala bëgg nga bëgg doon maire commune wala nga bëgg a doon ab gouverneur en tout cas yore nga ndombal tànk boo xamante ne élu nga la nga war a def su weesoo nga xam muhammad sallallahu alayhi wa mooy kan nga jàng ko ca nam doon doxale yaakaar naa ne kooku war na mën a xam jàng bu baax histoire u Seydina Muhammad Seydina Umar qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah bu dee bu ngeen yàlla borom bi subhanahu wa taala bëgg leen mu ne fattabi'uni yuhibbukum allah na ngeen topp yonent bi alayhi salaatu wa salaam yàlla bëgg leen kon ñu ngi sant yàlla di sant képp koo xam ne teew nga fi koo xam ne ci dëkk bi nga dëkk wala da ngaa jóge feneen ñëw fi xam leen ne jumaa ñoomar ñu ngi lay nuyu di la ziar di jël kaddu yi rek ci waa imaam yi raati imaam yi nga xam ne ñoo seq jumaa ñoomar bi ñu ciy jiital imaam raati bi di Cheikh Ousmane Faye di ci teg Abdoulaye Faye ak oustaz Papi Sène ak ñi nga xam ne ñëpp ñoo topp seen ginnaaw ñu lañ leen di ñaanal yàlla borom bi subhaanahu wa taala dëgëral leen yokk seen xam-xam ah, yàgg loo fii waaye avant loolu juma bi ñooñu rek ñooy imaam yi waaye nag dafa xam ñoo xam ne ñoom ñooy dundal jumaa ji di guddi ci bëccëg heure boo dem tamit ñoom nga fay fekk mu nekk paa nga xam ne ñoo toog ci ginnaaw te ñu mun cee lim ci ñoom rek di ki nga xam ne mooy suñu imaam di imaam Cheikh John nga xam ne yaakaar naa ne lu bari liggéeyal na ko diine fii ci lislaam ci ndaw ñi ba jël ci nga xam ne ñoo topp ci ñoom ñëpp Ah, ñoo nekk ñee ngeen di gis ginnaaw ñooñu ñoo tax jàkka ji taxaw fii jàkka ji tamit buy dund tamit nañu xam ne ñoo ñoo koy dundal kon leneen lu ñu wax rek mooy koo xam ne leer na la moom jumaa bi taxaw na fii war ngaa góor xam ne ab jumaa tabaxuñ ko bi ab dëkk rek ngir ñaari nit wala ñett nit waaye dañoo bokk képp koo xam ne ab jullit nga te ngay dëgg nodd boobu war ngaa góorlu ba bokk ci ñoo xam ne dañu koy taxawal kon loolu tamit am na solo ngeen xam ne ay jàmbaar lañ ñu ngi leen di ñaanal yal na leen yàlla borom bi subhaanahu wa taala kattanal bàyyi محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن نهج نهجهم إلى يوم الدين رضي الله تعالى عن شيخنا ومولانا أبي العباس شيخ أحمد التيجاني وعن خاتم الختمين أبي إسحاق مولانا شيخ الإسلام الحاج إبراهيم إخوة الإيمان نحييكم تحية طيبة مباركة وهي السلام عليكم ورحمة الله نحمد الله سبحانه وتعالى في هذه الأمسية الراقية التي جمعتنا اليوم li zikra rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa wa sifaatihi mbokk yi ñoo ngi ñëw di leen nuyu ci turu mbooleem taalibe Baay bu nekk ci département Mbour di wax gan ñi ne marhaban bikum al muqataa muqataatukum wal baladu baladukum kon ñu ngi leen di tatagal dineen wax ne bismillah tànk yi ngeen ñëwee ak yi ngeen di delloo yépp yal na ko yàlla def yiw ku wér ak fajuk aajo suñuy nuyoo nak dañuy tàmbalee ci sang yi nga xam ne ñoo jóge ko ca pey bu tedd ba madinat cheikh islam cheikh al islam ñoo ngi leen di nuyu di leen tatagal ci barab bi nga xam ne yàgg nañ fee daje biñ fi mujjee daje mooy bi inauguré jumaa ji ñu jàkkaar lool muy liggéey yu mag ñoo ngi leen di nuyu di barkeelu seeni jëmm ndax dafa am ñoo xam ne boo toogee ak ñoom laa yasqa bihimul jalisa suñu leen nuyu nuyu nañ pay ba nuyu nañu ki nga xam ne mooy xalifatu mawlana cheikhul islam الشيخ محمد الماحي الشيخ Ibrahim nuyu nañu mbooleem ay rakkam nuyu nañu sët yaag taalibe roxo yaag taalibe deret ya ñu ngi leen di gërëm bu baax ci itte bi ngeen def ci taalibe yi ñoo ngi am mbégte ci yéen bu baax sëriñ day bu la yaatanewee nii lu mu xewle nga taxaw ca sëriñ boobu du ma sa fàtte fa mu bokk ñu ngi leen di jërgal jëf daaima ñu ngi nuyu président ansaru diin bu Dakar waaye bu zone bi nga xam ne mooy son ouest mooy suñu soppe suñu xarit koo xam ne ku ñu bëgg la mooy Cheikh Barham Seck ñu ngi koy nuyu bu baax di ko sant ci farloom ci ansaaru diin góor góorloom ci ansaaru diin ansaaru diin bii képp ku fo ku ko fonk ñun dañ lay fonk ndax xam nañ ne fonk nga bàyyi fonk nga it njobootu bàyyi ndax ansaaru diin bàyyi moo ko sos kenn sosu ko bàyyi moo ko sos ci ay principe yu wóor la ko sose yi tamit yoo xam ne yi dafa wone ku ci bokk taalibeem nga ndax ba nga koy wax dafa ne dafa bëggoon membre ansaaru diin tolloog membre ay taalibeem kon képp ku bokk ci ansaaru diin na nga xam ne bàyyi confirmer na la ne taalibeem nga kon hay bu mel noonu ku ciy farlu ku ci góor góorgóorlu dañ la war a bëgg dañ la war a jàppale Sidi Barham moom noonu la mel ku bëgg ansaaru diin la ku ci sonn la waaye ku jege xalifa bi itam ku ko yëg la kon ñu ngi lay nuyu bu baax maa ngi ñëw nag ànd ak koo xam ne kii vice président Bale wax na ko léegi ki yore microcentral moy Latir fay waxna ko legui maa ngi vice president Alpha Sall boo xamne ne li tubab yi di wax infatigable mom du son muk fuma ko ne nañ rek mu jog mën na am sax lañuy indi moko topoto ba tay ji la so gisee ñu xawa tardé sax dafa am fenen fuñu jaar fo xamne fu melni la ci liggéeyal euh, lislaam bi rek ca la ñu jëkkee dañu mujj coupé kii ba pour duñu tardé jataay bii suñ fi jógee it am nañu ay yéene ndax am na oustaz Xaar Ngaay ku nekk xam na ko moo nekkoon Aminu Sunduk euh, trésorier bu ansaaru diil bu jëkk bi wa tey njogotam ñooy def gàmmo ci waran suñu ko jot bi maye mën nañ fa jaar bëgg nañ fa jaar waaye itam Cheikh Ahmadu mu imam hasan tey am na conférence bu muy def ci biir Mbuur ki yoroon social ci ansaaru diin tey moo ko organisé foofa it war nañ fa taxaw ñu ñaan yàlla yàlla nañu ci yàlla dimbale di ñaan sëriñ yi ñu ñaanal ñu ci yàlla ndax li yépp ci liggéeyal baay la ñoo ngi nuyu Cheikh Ousmane jàmbaar Ousmane dëgg la alalam da koy def dundale ci lislaam ku xamoon soo nu rey ni war nga xam Ousmane mii tamit ku nangoo sonn ci diine ji la waaye ku nangoo sonn ci faydu bi la alalam du ko fekke pexeem du ko fekke ku am méthode la mën a organiser ñeme njaboot maa ngi fàttaliku ci accueil yu xalifa bi bi mu tukki jee moo jéngu kaar yi jóge woon mbuur yépp mu dalal leen këram di leen jox lekk di leen jox naan te joxuñ ko dara muy kenn di ndaw waaye ndaw loo xam ne li bu am njëriñ la man nag li ma neex ci moom dafa fonk njabootu Maulana Cheikh Ibrahim yi mën képp ku bëgg njabootu Cheikh Maulana Ibrahim rek dama lay fonk dama lay bëgg ndax Cheikh Ibrahim du benn jëmm jëmm joolaal rek Cheikh Ibrahim la kon ku fenk njabootam rek man dama ko dama ko yëg te dama koy fonk moom nag daf leen fonk moo tax itam ñoom dañ koy njukkal le fu mu wootee rek boo fa ñëwee da nga dajeeg njobootu Mawlana Cheikh Ibrahim waa jegeem nag amel nañ ko njukkal barab yi ñun ay séeréer lañ suñu mbir yombul waaye ku fi mën a dem a dem ba taxawal tànt bu toll nii dajale fi ay walu yalla yu tollu ni sa bokk yoy waratuñ la fàtte te war nañ lay ñaanal yalla nga dund fi lu yag ñun xamuñ won li kon li ku ko bëgg duggal ci ñun da nga am méthode bo jaar ba ñu comprendre so soo déggee ñun parce que séeréer la comme gox bi ab séeréer la su ma làkkoon ay séeréer léegi ngeen yaakaar ne dégguma olof yi kon suñu mbir yombul kon ku am metod boo mën a jaare ba dugal faydu bi fii ba tasaaree ko ni ko tasaaree dëkk bu nekk muqaddama nga fa tey ngéejaan gi fay faylaar ak feneen ak feneen ba gowe ak yépp muqaddam yaa nga fa fi mu nekk nii masha allah gox bi ku fi ñëw te bokk ci faydati ibrahimiya doo tumuranke waxuma la nga wax waaye boo soloo sax ñu xàmmee fi nga bokk Cheikh Ousmane am na ci loolu cër kon waa waa ñoomar waa jegeem amel nañ ko njukkal waaw ñun ñi bëgg loolu itamit amel nañ ko njukkal kon Cheikh Ousmane ñu ngi lay ñaanal yàlla tawfiq di la ñaanal yalla nga am germande maulana Cheikh Ibrahim ci liggey bi ngay liggey ci l'islam bi ci faydu bi te yalla na yalla rek tax ufoon nga ñépp waye na nga défar waat u ufaat ñépp rek waaw xamne bay ni la melone ñépp la uuf amul xajj ak sen waaw kon nak Euh, ni ma ko waxee rek waa ansaaru diin ñu ngi lay ndokkeel di ndokkeel waa jegem yépp gàmmu gi ñu ñëwoon kër ga yëgle si nee nañ ma mooy ki gën a mag ci fii ndaxte bii mooy fédération bi daayira yépp a ci daje ku dem géejaan benn benn selil nga demal ku dem budaay benn selil selil nga demal ku dem selil nga demal boo demee faylaar naka noonu boo demee gooye ak feneen ak feneen benn cellule nga demal waaye kon ku ñëw fii kon ñëwal nga fédération bi nga xam ne moo leen takkee kon ñu ngi leen di ndokkeel yéen ñépp kàddu yi fi jib rafet na masha allah Ansaarud-Din bëgg bég na ci waa Ansaarud-Din département Mbour yépp ñu ngi leen di ndokkeel di leen ñaanal yàlla Euh, laata may yore microcentral bi ci bureau ansaaru din la bokk Mouhamed Male ci bureau ansaaru din la bokk ndax dañ ko décentralisé euh, dafa nekk nit koo xam ne moom la Cheikh Ahmed dàmm tegoon loxoom ci oustaz Faye mi mu amoon yéene lool pour ñëw tey ci bis bi mu xëy am kenn ci soxna yam doon mosoon denc mu wàññeeku ñu koy denc ci Taïba Niassène ma ñëw di ko massawu ma ne ko nag man du ma mën a dem ba damay dem ci oustaz Thiaw damay dem ci oustaz fay mu ne ma jëf demal nga wutuñu foofu ñu wuuta la Taïba soo demee nga nuyul ma oustaz nga gërëmal ma nga ñaanal ma ko yàlla ne ko gërëm naa ko ci turu Cheikh Sidi Habib Ahmed Dam kooku am na délégation bu tànn ñu ngi ci yoon ñu ngi ñëw oustaz Thiaw li mu wax dëgg la jataay bi jataay yi sant yàlla la tey suba maa ngi koy wax kenn ci Medina Baye ma ne ko Cheikh Ousmane Faye ñëpp dañoo war di dem ci jataayam ndax daaw bi may ci mujj xam dara xam naa mille trois cent et quelques personnes yoo xam ne moom moo leen tubal dugal leen ci diine l'islam kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax ne kenn nit rek mu jubee ci yow moo gën àdduna ak lu ci biiram kon kooku noonu mu mën a jubal ay junney junney nit kon jar na ay junney junney nit déplacé ñëw na ko jër jëf ndax junney junney yooyu mu jubal am na ci koo xam ne nii tey bu ko jubalutoon mën naa am dana dëngal suñu njaboot kon jubal boobu mu jubal ko kon mu ngi lay gërëm mu ne mu ngi lay ndokkeel mu ne mu ngi lay ñaanal yàlla ñun ñëpp tamit ñu ngi lay ñaanal yàlla ndax bi ma bi bi oustaz Thiaw di wax ma gis sunu waa kër oustaz Cheikh Moustapha Gueye di dugg ci sama xol dafa sedd ma kontaan ndax moom tamit noonu lañ daan toogee moom ci jataay bii ñu ngi ñaanal yàlla njaboot gi yal na leen yàlla dëgëral yal na leen yàlla sàmm yal na yàlla aar yal na leen yàlla saxal yàlla saxalal leen dëgg-dëgg fu bëri damay gis oustaz dafa daan teew mais su ma tourné damay gis njaboot gi teew sama xol bi sedd lool parce que oustaz dafa bokk ci statisé yi nga xam ne nii bu ñu fàddoo sax ñu ngi jàngale tey bi su tey bii am na koo xam ne jàng na dars boo xam ne oustaz moo ko jàngal te mu ngi koy kii kon kooku dafa bokk ci li nga xam ne yàlla yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa waxoon ne bu ñu génnee àdduna seen jëf yi ñett ilmun yantafiu bi moom bokk na ci loolu nag yal yàlla yokk leeram ñu ngi lay ndokkeel oustaz aw ma di nuyu muqaddam yëpp di nuyu waa ñoomaar ak li ko wër di nuyu Cheikh Ousmane bu baax a baax di ko ndokkeel ci bés bi délégation ba àndal nag Cheikh Latir commencé na ci sànq bokk na ci le colonel Pape Leguy. Gueye, and nak comme Nimkowache, ko euh, Ousmane Dieng Jean Baptiste Ndour Koulidien, Dieng Elemen kom mustafa dien di Papa nyi ñi ñom ànd ak man ci délégation bi ñëw jëmal si bës bi bës bi nga xamantene nak suma neexon sax baña a wax laatér li nga wax sank ni Cheikh Ousmane suma neewon togal fele damay parce que sekk nañ lu rew lool kon lool du dara tay bu amone ku ñew fi ni amul fu mu toog damay jog parce que bëss bi sama bëss la may contane bu baaxa baax nag di sante yalla di sante sama wayjur di ñaanal sama papa mi jitu yalla nako ko xare aljana yalla nako ko xare aljana di sant aussi sunu conseillers ak sunuy responsables yi nekk ñoomar ku ci mel Biram Tin, ku ci mel maire Marie Faye ah maa ngi sax ànd nañu monsieur le maire Aliou Niane euh, lépp di Benno Bokk Yaakaar nag ñun ñi ànd fii ni tey boo leen gisee yaakaar naa délégation bi Cheikh Ousmane sa xel war a dal parce que am nay jamono bu kii jaaroon fii keneen ki jaar fa ca des mais te yàlla def na ñu fàtte lépp jiital seeseen ñun ñëpp ñu topp ci monsieur le maire parce que mom la fi yalla tek mu man ko torop nak ñuko ci sante bu bah baax di ñaan ngeen ñaanal ko parce que mom la yalla deunk sesen te dana faral di deug ñuy naan bo nekké ci gal del ñaan gal ga muccu kon ñaanal len ko vraiment mu yor sesen yor go mucc ayib kontaan nañ ci moom bu baax a baax a baax a baax may sant samay xarit aussi ñi jàpp ci bés bi tey bu du toon xew yi yaakaar naa délégation biñ fiy indi bu ñëwee yaakaar naa nañ am problème pour dalal leen di sant ñeneen parents yi aussi di leen nuyu dëgg naa fi Pape fay Faye muy ku baax damay faral di naan bu ñu amoon fukki Pape Waly duñ jaay duñ dara ku baax la te man naa def seede gi fii man daf ma jàppale bëgg ma te li manqué jamono ji léegi mooy reconnaissance mooy gore ma jaar foofu rek dugg ci temu conférence bi Cheikh Adrame li nga def sànq buñ fa yemoon rek presque mat na conférence parce que kan moi thème bi mooy Mouhamed kan mooy Mouhamed jikko yi nga wax sànq ci Mouhamed Adrame lolo ñu manqué léegi te ñu ne ay jullit lañ kon fan man su ma tàmbalee rek avant message bi di yegg ci moom ñu ngi ko daan tudde al amin mooy ku wóor ki koo xam ne mën nga kaa dénk koo xam ne mën nga kaa deeyoo mais Sénégal tey lan lañ gis koy waxal mu ngi lay enregistré pour mën laa dugal ci réseaux sociaux yi koo wax sa soxla balay am jamm wax ko wa Sénégal yep. wala mu garder ko di la ci chantage kon est-ce que ñun ñu ngi évaluer ñun li ñu donne té moy ay julit est-ce que ñu ngi évaluer suñu bop fi dëkk bi tollu est-ce que war nañ di top rek ñi jóge feneen ñëw indi seeni jikko di ñu gëmal liberté Adrame li mu wax sànq dafa am solo koo fi wax mu ne liberté mais est-ce que liberté jig na doomi aadama lan la liberté di indi sa baay wax nga ne d'accord mag yow sa sëriñ wax nga ne ah sama sëriñ la waaye li mu wax ànduma ci ki dëkk bi jiital wax nga ne ànduma ci te danay faral di dëgg ñuy naan ku amul kilifa jina di sa kilifa kon est-ce que Sénégal nekkuñu côté boobu tey may lancer un appel ñun ndaw ñi tey koo fi wax mu ne jikko yàqu na mais ñun waruñu ko nangu nag ñun ay jullit xàqan lañ wala gëm nañ yàlla boo gëmee yàlla dafa war a am li koy firndeel te mooy nga toujours ngay xool fan laa teg sama tànk yan jikko laa jël ci yonent bi Adrame sànq mu ngi tàmbalee ci wax ñaari nit kenn ku ci nekk na wax lim xam ci yonent bi mais loolu dafa war a continuer toujours kenn ku ci nekk bés boo xëy taxaw nga xol est ce tay lima def méngoog nak jiko yonent bi parce que bes bu ci nek nak yaangi gën di jégué sag dé ñun ñuy genti lolu toujours gën di jégué adina adina gën di ñu dëddu kon est ce jotut ñu xolaat sun bop est ce jotul ñu xolaat sun bop tey saagante gi bëri na waxante lu ñaaw te dara waralu ko lu dul alali àdduna alali àddina kese te lépp fi leen koy bàyyi alaxira ajana gudd torop kon est-ce que jotul ñu xool ne préparer foofu moo gën fuuf may xeex ci problème mu àdduna yi waxuma na nag liggéey pour am àddina baaxul waaye bu mu la gënal nag ajana te ajana nag pour nga am ko dafa laaj nag ay condition condition yooyu nag mooy topp ci tànk yi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jéem a jàng ba xam ay jikkoom di ko dunde di ko waxe loolu commencé di manqué ci ñu bëri ci senegal parce que jëlatuñu référence nag sunuy suñuy mag ñu baax ñi ku ci mel ni Baye ñas man toujours dama koy wax ruuxul adab bi mu njëkk a bind ndaw bu ne bu ci tënkoo rek foo taxaw nit ñi xam ne jullit aqana gi nga jël sëñ Touba la même chose nga jël sax waa jàngu bi mag ñu baax yiñ am ñun ñu indil ñu référence yoo xam ne boo ci toppee doo am yàlla doo am yonent bi kon est-ce que ñun nekk ñu di ñàkk fula est-ce que jotul ñu évaluer sunu bopp ñun Sénégal nag ñu toll ci tournant bu doy waar duma tàyyi di ko wax li ñu manqué la woon yàlla def na am nañ ko ba am li ñenn ñi amul li ñu am te ñeneen ñi amuñu ko mooy mag ñu baax ñi di tantal yàlla di tantal yonent bi bariwul fi mu am ñu ñëw ci alal loo xam ne muy defar sunu àddina ñu mën a préparer sunu àjjana yàlla jox ñu ko te mooy petrol di gaz di naaj di ndox lépp am nañ ko mais est-ce que préparer nañ suñu bopp est-ce que préparé nañ suñu bopp est-ce que ñu ngi góorgóorlu di sóoraale li dal ñeneen ñi balaa mu ñuy dal te muy ñàkk kilifa moo leen yàqal xeex ba ay jàmbur jóge fa la ñëw jëriñoo ko nan ko moytu te mënuñu ko moytu nag fekk amuñu yar dëkk yar moo koy doxal doomi aadama yar moo koy doxal di nga am yar am muñ ñaar yi boo ko amul ci àdduna dara doo ko am wala loo am looloo ko fay jële rek kon Cheikh Ousmane maa ngi lay sant di la gërëm maa ngi lay sant di la gërëm di kontaan ci lii bu baax a baax nag li ma defal nii Euh, c'est pas la première fois Yakarna suma su fini toogee fii contribuer ma xam ko kenen, xam ko xam ko Adrame mais témoin parce que dafa fekke lepp fu ñu taxaw wax ñu xam ne ñi ay yi xam-xam lañ ñi am diina lañ dit, ko na na kon ñu temps mais kontaan naa ci yow li nga def si jegam yal na la ko yàlla fay ñun de xam nañ ko ñun ñuy génn di dem feneen li nekk ci gannaaw yëpp mën nañ yendu di def conférence ba ngoon jot foo leen yëbu ñu def conférence bi te lépp ci sa loxo gi la jaar kon ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax a baax a baax may santaat nag waa ñoomar bu baax di ñaan dëkk bi yàlla na fi yàlla dolli sutura seeseen yàlla na fi yàlla def dolli sutura Cheikh Ousmane nga ñaanal bolom réew mi parce que moom lañ fi toogal nag nga ñaanal ko dëkk bi dal ci dal lañ mën a defare lépp ci dal la développement am ci dal la jaamu yàlla gu wër nekk kon ñu ngi leen di ñaan ngeen ñaanalaat borom réew mi kontaan nañ bu baax a baax a baax a baax. de la commune wala le maire euh, bi nga xam ne ne moo yor dëkk bi ndax ñun daanaka miinuñu àll bi gannaaw loolu ñu ngi ñaan njekk sëriñ bi muy Cheikh usmaan ci kàddu gi nga xam ne ne jox nañu ko xanaa kay dafa neex rek nga dem ci ab dëkk. ñu jox la kàddu waaye amul lenn loo xam ne ne rek mun nañ ko fi indi ndax fu suñu wu góor muy alxaaji Moustapha Gueye tegoon tànkam ñun ay doomam buñ fa tegee tànkit maanaam du loo xam ne lañ fi war a mën a indi ndax am ngeen ngërëmal yàlla ba góor gi nga xam ne ne bariwul tànk ci fu ne waaye comme bàyyi moo ko ñor ndax waxal na ko ci boppam ne moo ko jàngal wala ku mu jàngal rekk moo ko jàngal donc fépp foo xam ne ne lislaam dafay woote muy dëgg rek dafa daan teew te alxuraan nee na yeggali sa kóllëreg baay wala topp sa kóllëreg baay lu baax la moo tax ñuy yeggale kóllëre gi nga xam ne ne alxaaji Moustapha Gueye amoon na ko Cheikh Ousmane mi ñu ngi nuyu nag waa ansaaru diin ansaaru diin ak istuwaaru u alxaaji Moustapha Gueye dafa yàgg ndax bu tàmbalee tam tafsir bi muy def fële ca dëkkam ba fële ci caaro yi waa ansaaru diin ñoom ñoo ko eh, yenu woon lépp ba jox ko ko loolu ñun sax romb na suñu judd moo tax ñoo ngi nuyu sëriñ Seck bi nga xam ne moo représenté Ansaarud-Din di ko tatagal di kontaan wax dëgg yàlla xanaa sant wi rek moo ñu ci xaw a jaaxal waaye xam naa ne ne suñuy wax histoire boobu lu yàgg la ndax ba tey ji chaise bi bu waa caare kaw Kër Massar ca kër El Hadji Moustapha Gueye foofu la ñuy dajee fa la ñuy réunion ba fan yi paase rek sëñ Thiam ma may woo di ma laaj adresse bi pour lépp lu ñuy def ñu mun ko continuer donc ñun ak ñi yéen maanaam ak njabootu Moustapha Gueye lu yàgg la te day continuer te dinañ ko continuer di ko doxal Cheikh Ousmane ah, xëy na xamantewuñu woon waaye nit ku am kóllëre la nit ku baax la ndax su ko neexoon mu ne kii newoon na fi waaye newatu fi waaye dafa xool numéro sëriñ bi woote ci te di ci woote nag di ci woote ba xame am mu yëgal ñu bis bi te ñun amuñu lu dul suñu góor googu moo ñu teg ci li ñu ne moo ñu jàngal te lu ko ñorul woon rekk ñoruñu su ma xamul woon ne daaw fi ñëw it du fi teg sama tànk ndax lu mu neex neex ak lu mu neex nekk ci àdduna fu sa bàyyi daawul teg tànkam bu fa teg sa tànk duma tàmbali dara te du ma muy Cheikh Ousmane yi dañ koy ñaanal rek yàlla gën ko dëgëral yàlla jàppale ko di wax rek yàlla na la yàlla iir aar la muccal la musal la gën la dëgëral ci lii nga ne ndax lii dëgg la ku ko gis xam ne dëgg la ndax indi nga autorité indi nga nitu diine indi nga li ëpp solo te moom la suñu bàyyi daan daan jiital muy ak taalibe bu ma xoolee fii nii gis njaboot gi sama xol day sedd ndax Alaaji Mustafaa Gey ku ko xam ci jàng ak jàngale rek nga ko xam maanaam munoo xool ci leneen loo xam ne ne mun nga ko ci boole te bi ma ñëwee fii sama xel dal na dala wax sëriñ bi suñu xel dal na yal na la yàlla gën a taxawu ci lii xanaa di gàttal rek di wax ne am nañu mbégte bu baax a baax a baax ci cër bi nga xam ne jox nañu ko ndax ñun ay jullit yu xeebu rek lañu ndax mënuñoo def lenn loo xam ne dinañu feeñ ndax suñu góor gi daf daf ko yëkkati maanaam ba ca kaw a kaw. asalaamaaleykum mbokku waa jigéen asalaamaaleykum mbokku Sénégal. ñoo ngi dalal gan ñi nga xam ne ñoo ñëw ci commune Sessène euh, ñëw naa ci bés bi nga xam ne bés bu ma sawar a ñëw ndax sëñ Ousmane dafa nekk koo xam ne nitu diine la te diine rek moo ko ñor parce que soo seetee daaw fekke naa fi ñuy tuubal nit ñu bari ba lu mot junni ak lu topp ci biir jigéen kon nekk na nit koo xam ne nit ku ñu war a sant la ndax ku ko santul doo sant yàlla nit kuy suuxat diine dañuy ñaan yàlla yàlla na ko yàlla fay ay yiwam damay ñëw ci ñaari fan laa ciy waxe damay wax ci fanu maire commune Sessène mais damay waxaat encore ci fanu représenté Richard Biram fay ki nga xam ne moo nekk le sous-préfet de Thiadiaye sous-préfet te mu dëkk caa bureau nekk Thiadiaye mooy Richard Biram Faye ki nga xam ne Euh, bëggoon na ñëw mais dafa def passation rek mu amoon permission ay fan yoo xam ne dafa delluwaat seen dëkk may gërëm kilifa diine yi nga xam ne ñoo nekk ci Sénégal te comme ni ko Abdou waxe ñun ñëpp suñu royee ci suñu kilifa diine yi dañuy am li ñu bëgg ndax kilifa yi liñ fi def keneen mënatu ko fee def Baye Niass euh, kontaan naa ndax li tax may wax Baye ñas euh, Serigne Ousmane yow jël nga tànk Baye Niass li tax ma wax ko Baye ñas bi mu nekkee senegaal nekkul rek ñi mu tuubal mu yemoon senegaal Baye Niass nitu universel la foo dem ci àdduna nga fekk taalibe Baye Niass kooku am na loolu nekk na rek référence kenn taalibe Baye waxuma am na ay ñoo xam ne dañuy mbuuboo taalibe Baye te duñu taalibe Baye mais taalibe Baye jàng topp yàlla ak liggéey loolu lañ leen xame loolu wóor na àdduna bi loolu itam dañ ci rafetlu ci ni nga xam ne moom noonu lay organiser eh, lii nga xam ne ziyaara bi muy def at bu nekk nekk na loo xam ne sax war naa weesu au niveau communal dafa war a dem ba au niveau national parce que sëñ Ousmane ci ñi nga xam ne ñi suuxat diine kuy suuxat diine moom yëpp say lépp yàlla def koy suuxat yàlla na yàlla dimbali la bu fi nga bëgg a diine ci Sénégal waxatuma ci jigéen ndax soo waxee jigéen day day mel ni dafa tuuti yow Sénégal ngay liggéeyal yàlla na la yàlla fay liggéey boobu am na itam ñi nga xam ne ñëw nañ mu nekk suñu référence ma kontaan ci lool mooy bi ñu waxee Sëñ Moustapha Guèye kooku bi ma nekkee biñ nekkee ay ndaw toujours ci diini ak lislaam dañ ko doon seetaani tele ndax kontaan ci li nga xam ne moom lay def yal na ko yàlla euh, yërëm yal na ko foofu gënal ko fii mu nekk ci kooku yàlla def na ko léegi pour euh, ma gën a ñaax nit ñi yónnent boo xam ne ni yónnent bu ñu neex la di yónnent boo xamee ni bu ñu itteel la ñu am mbégte taxaw fii tey jël kàddu madame la maire di ko yëkkati ci turam bien que nag mënuñu ko matale ndax kaay waxal ma neexul waaye dañ ciy cof rekk wax leen li nga xamee ni moo doon yéeneem madam la maire tey li doon yéene mooy teew ci làng gi langue diine gi langue islaam gi langue sallallahu alayhi wa bi mu teew fi taataan ci géeju xéewal bi nga xamee ni moom moo sotti ko fii tey sëñ bi madame la maire mu ngi lay nuyu madam la maire mu ngi lay jox sa wàccuwaay madam la meer mu ngi bokk ak yow bés bi nee na bés bu ko gën a ñor ëppul bés bi neena mu ngi ñaan lépp loo xamee ni moom ngeen fi ñaan Sénégal yépp bokk ko di ci jiital nag président Macky sàll mi nga xam ni moom tey lu am rek mooma lu mu mën moom la nu mu mel tey njege ñaaw mooma madame la maire daf fi ñaari casquette benn bi muy directrice de l'ANA waye benen bi mu bok ci djegam parce que djegam moy ñomar djegam moy njege ñaaw kon madame la maire dafa bok ñomar lolo tax mu teewee fi ci benen casquette mu ngi sant mu ngi gëreum lo lu amul Nene néna na ñaan bo xamni rek ñaan nañ ko fi yalna na saawaan ci Sénégal yépp kontaan nañ lol kaddu yi nak mën ta guddu ndax dañu di ndaw te suñuy kaddu leeru dañu bañ notel duñu not kenn motax suñu mbokk pula di nan bu l'islam ñëwee ci fouta séeréer dañu daw non non non séeréer bu nek sét du nek fu waw du nek fu fu sek ndax dafa don tawlo yalla kuy tawlo yalla do nek ci sécheresse loolu motax buñ ñëwaan ba affaire bi di waw ñuy sàmmkat ak ay baykat dañuy déplacer wu ci gàttal bu ñu nous ba installé ñi ni ñi ñi directement Fuuta ñew fi boobu léegi Bawol des ngi ni Siin ngi de Kajoor suñu ku ne xam ak Bawol ci xex lañu des ak lambay jégué pas nekk kenn ci te ku daw système bobu nak mu nek système démocratie participative bo xamné fo xamné ne nit mbolo nga fa rek nit lañ fay désigner né latir wo far ali wo far jegem xoykee far mu té te Makor, makor mu nek ay des lancements ay gor yu mak ci zahir ak ci batine ñoo doon gouverner ay jaraf ak i laamaan ñoo doon gouverner mu doon démocratie bu wër y a pas d'exploitant ni d'exploité amul gouvernant et gouverner tout le monde gouverne à la fois ça c'est la société humaine Lolo qui nous manque. Si de ne qui day exploité qui nous exploite, c'est parce qu'il y a un chef te chef boobu ont ànd famille ànd ak ay xarit ñu exploité le bas peuple bu mu Égypte contexte est le Cheikh Ousmane kon fi nga bañ politique ci nous avons avancé y a un pas qui a été franchi Dès que nous sommes ñoomar mu bokk ci nous sommes du ci porox nous sommes du fi nous ndolu kon lii porox ndol nous gogo de bu nous porox ndol nous nous de nous Nous nous fu war a l'Afrique est l'Afrique kon ku fi doon falu ci jigéen ci weenu ndey ngay jóge moo tax nit ci ndeyam lañ koy seede paapa nekkul lu rëy ci séeréer Afrique sax la woon bi jullit bi ñëwee nag diine bi ñëw boobu la góor papa am kàddu ci doom mais bu but xonqaan papa dañ koy ber séeréer kaa lay li gën naa nga li may kon weenu ndey moo amoon solo ci jegem moo tax ñun ñu téye loolu buñ ko téye nag nguur gu ñëw rek fekk ñu ci duñu mën a daji tubaab bi kay moo daj kayoor daji bawol daji waale ñu mais amul benn nit ku ñuul bu ñëw mos domine fii moo tax sëriñ ci dañ ko doon moytu moo tax Cheikh Ousmane am lu mu am li def yépp nag ci seseen ci ci jegem Ousmane Faye def na ko si ñoom ñoom mujjee def lël fii wala bokk na ci avant dernier yi def lël fii te fii lël ci ñoom la gëjee dëkk bi nag dëkku cosaan la kenn du ci poroxlandu kon ku ci poroxlandu ba yéeg ci kaw ba ñu lay seen ci kaw kon góoru yàlla dëkk nga loolu nag dafa fekk mu ànd ak góoru yàlla ndax ku tax na ga tax na taxoo te ga tax na tax muy nekk Maulana Cheikh al Islam Alaaji Ibrahima Niass moom mi bëtti àddina bëtti frontière yi bëtti océan yi bëtt les septième ciel pour message bi jàll kon loolu bu ñëwee kanu boobu bu dalee biir jegeem lu ñu jàpp day rëcc loolu moo tax Cheikh Ahmed Dame yónni ko fii mu am histoire personnelle mu nekk néegu ndey moom la lignée des Fall te nu Fall ci la bokk te ku wax jegem mëno ci génni te nu fal ci histoire loolu dafay gudd ay papam ay jaafaaj lañu dëkk bi jaafaaj moom na ko terefu fa pes mbaat géej mooy bàyyi ñële saw kom bale jaafaaj moo ko moomoon te moo ko moom ba léegi mu nekk jam njóomeej goowe bi kol géej jaafaaj moo ko moomoon léegi ay baayam ngejaan mbaaru ngoor moo ko moomoon nekk jaafaaj sañara bu rëy jig jam nekk jaafaaj njuk la même chose boo mu dan na kon don na don chef ci bayam bu nekké li ci traditionnellement meun nañ ko nangu ndax ten fa pum kel ay mos ne fay kam jégem kon lolu meun nañ ko def rappel bu gat pour wan na ne parcours bi yombul ñun nak la andalon Abdou Diouf bi wax sank dañ né tedd nañ fu lal amul mais tedd nañ fu dara amul tedd nañ fu dara amul nit tuk yamba nan sangal kel a in mu ngi nii toog c'était pas facile de la tirer wante nag bu ñu tolloo fi nag dafay am étape lii bugg ko de dafa ñàkk pexe nu ma mel nii sax bugg ko dafay bugg ma sol dara sol koppati mais Ousmane xajam ne olay xama dafa waxoon ne Abdou na nekk lii mu nekk Ali moo jàpp sama loxo jàpp loxo Babacar Diouf ne la dama bëgg nga nekk journaliste c'était pas mon choix je veux être avocat mu ne ba léegi benn la ndax dangay waxal nit ñi ma nekk dem nekk journaliste mu bëggat nag tourné nag ne damay dem sëriñ événement bu ñëwee nga sol ko ma ne ko déedéet bàyyi ma ma lekk ci li ma nekk gars yi nekk ci lu ñu nekk su ko defee àdduna bi dox kon loolu moo tax man may ñëw fii mais mënoon naa def nii loolu la bëgg day yëkkati bëgg yére jox ma ma ne ko déedéet koo lay amee ref foo andoona koo défennois wi ne nu histoire ne nu laye ne mm. mais gaagawte si ma xamutem fi ah Abdou Khey dans la politique les autres font autre

kon li doon wax Ahmed ibn euh, ibnu Abi Talib xaw ma Abdel Muttalib ci yonent bi oustaz am na descendance boobu ci baayam duñ doon wax yonent bi ci mbaax ci Aminata oustaz am na loolu ci baayam wante loolu yëpp terewul mu mel taxul mu mel nii de baa Ñas moo tax mu mel nii ndax ku ne jaar na fi Sénégal fii jegem gii xam nañu histoire de mm-hmm. sëriñ bu ne jaar na fi bàyyi ko

rabbil ngi sant yàlla ñu wax ci xaq yonent bi sallallahu alayhi wa yaa Muhammad dama laa nga doon yërmande ñeel adduna ngi sant yàlla mi ko tànn tuddee ko xiiwal bi gën a màgg ñeel adduna bi ñeel jullit ñi te loolu moo waral ñun ñu war kaa waxtaan yi ndax yàlla wax ne waa maa bi nicmati rabbika fa xaddis xiiwal bu la yàlla jox nag ko waxtaan yi may laaj ayu ñaama ban xiiwal moo gën a màgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lay régler adduna bi mooy la yàlla wàcceel àdduna bi mu yonent bi sallallahu alayhi wa lépp lu ñuy xicoo ci kaw suuf buñ ko delloo ci waxu yonent loolu dina jur jàmm toogin gi ñu toog li ñu war mooy bëggante bu fekkee bëgg nañ yonent bi sallallahu alayhi moo ñu jàngal du ngeen gëm yàlla mukk lu dul dangeen ngeen bëggante bu ngeen bëggantee man ngeen a dëkk ajana bon ñun ñëpp nañu bëgg yonent bi ci suñu biiru bëggante Maulana Cheikh Ibrahim mi xam yonent bi dafa moom du bañ doomu aadama mukk ngir jëm ak yonte la Muhammad ndaa nee na ku mu xool xaykalu Muhammad rek lay gis ci yow nit kumu gis yonent bi rek lay gis ci yow ma loolu nag daf ñu ko jàngal ñun taalibe bàyyi ci jëmmam won ñu ne eh, nit mënta bañ nit wala nit warta bañ nit wala suy bañ ña bañ ay jëfam bàyyi mi wax ne buñ ma photo woon photo yonent bi benn jëmm rek mooy feeñ daf ñu jàngal kan mooy yonent bi ci boppam gannaaw ba mu waxee ne wasal abdu fanin jaam bi dafa jeex takk ci yonent bi ba dara desut mooy ahmad mooy muhammad mooy la ci gannaaw wax jooju fan la ñu jàngalee yonent bi ci boppam dafa ne <clears throat> ana nafsu wal afaqu mahma raaytaha teraani man maay bakkat yii ngay gis maay gox gii ngeen toog foo xool man ngay gis loolu bu ko firi ci ay maqaama mais firi ko ci defar jikko e jaami yallay bo gisoon bayñes mu toog tey dinko dem nuyu ñaari loxo ñun ñëpp loolu wér na doomu cheh ibrahim bii toog del imam hasan bu ma ko doon nuyu tey dinaa ko nuyu ñaari loxo léegi bàyyi na la maay bakkan yi maay ki toog xam lan la lay jàngal koo mën a dajël boo koy nuyu xoolal ci moom jëm ak yonent bi nga nuyu ko ñaari loxo soo gemee ni jaam yi yëpp ñu ngi faqee ko ci leer ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam est-ce que di nga lor benn jaam yonent bi toog na ak Omar ibnul Xataab ne ko atadri man ana ndax xam nga man maay kan mu ne ko allahu wa rasuluhu alam yàlla ak yonentam ñoo xam mu ko man maay ki yàlla njëkk bind waaye ci sama leer la bindee ñëpp mais bu fekke gem nga lolou est-ce di nga bañ nit est-ce di nga saga nit est-ce di nga xas nit est-ce di nga lor doomu adama dedet moo naa wax ak bay be dalay jangal yow talib bay bi beugal ñep ndax ko bañ bay nga bañ ko bëgg bay nga bañ waye wax ak bay dalay jangal nit bay amut yonent bi mo am bon koo bëgg yonent nga bëgg koo bañ yonent nga bañ loolu message la bu may jox sama bopp di leen ko jox yéen problème bi am ci àdduna bi yépp tey bu fekkoon ne mbëggee ak yonent dafa fees suñu xol wala ay problème du am ndax lañuy ñuy boo ko xamee tigi tigi mu ngi ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu jee daraja ngay xiccoo wala nguur ngay xiccoo wala maqaama ci cëriñ ngay xiccoo wala sax leneen wala alal ngay wut loolu yàlla jàngal na la ko ni koy abee ci lu yomb jarul ngay bañ kenn jarul ngay xeex ak kenn jarul ngay xuloo kenn xam nga lu tax <clears throat> ragalal yàlla rek ñaari nit lépp lu ñuy xiccoo ka gën a ragal yàlla moo koy jot fekkee lu am njariñ la yàlla wax ne wa man yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra yow politicien bi xiccoog sa moroom ragalal yàlla rek boo ragalee yàlla yàlla dina yombal say mbir boo demee uti yow yaay fal bon yonent bi rek problème bi àddina yow miy xiccoo maqaama ci àddina mbooloo topp la ñu tudd sa tur jarul wirdugu ëpp bu fekkee wirdu gi ñeel na yàlla waaye wirdu ut maqaama wala sangu ngir am maqaama jaru ko ragalal yàlla yarsuqu min xaysu laa yaxtasib da ragal yàlla rek yàlla jox la loo bëgg lépp looy ut ci kaw suuf yonent bi nee na ragalal yàlla ma jox la ko alal maqaama daraja ak lum mën a doon loolu nag pour mu am mooy ñun doomu aadama yi faw ñun nangu ne ci benn nit lañ jógee nit kooku mooy aadama te aadama moomu ci yonent bi la jógee su boobaa nit ñi dinañ bëggante leen nit ñi niñ bëri waaye koo gis rek uuti na nit kat moo def loolu faalun li maa yurid yàlla mi def ki nga bokkal ndey ak baay ngeen juddoo ci benn bés benn heure benn biir te niroowu leen yàlla moomu moo def nit yi duñu em may ba mukk man ngaa yar nit léegi jàngal ko léegi mu ëppale ay maqaama léegi nangul ko ko man nga yar nit ëppale ko ba faw mu dable ba son du ci egg yàlla mooy bind te jaam yi duñ niroo nañu uutee ci melokaan noonu lañu uutee ci may boobu buggee noppalu nag melal ni Mawlana Cheikh Ibrahim may doomu aadama sonalu ko ndax xam na lu nit am rek la nga war a am rek la ngay am loolu buñ ko dindi woon suñu xol yi kañaan daf joge jóge xicoo daf fiy jóge werant daf fiy jóge yàkkamti daf fiy jóge ndax bu fekkee lépp looy uut yàlla rëddoon na ci asal kii ñoomar lay juddoo Barham Seck mii Kaolack lay juddoo mais dinaa leen boole ci benn góor gu màgg gu taaru ñu xamante ci kooku bëggante ngir kooku bon ñaar ñooñu bu ñu demee ba bañante war nañoo xoolaat seen bopp te ñun ñëpp ñu ngi daje ci aadama aadama jógee ci yonent yonent bi jógee ci yàlla bon ñun ñëpp ñoo bokk nañu rafetal suñu ànd yonent bi nga xam ne nag moom la ñu tantal duma ci guddal guddi gamu gi yëpp yonent lañuy ñuy waxtaane lépp lu ñu jël ci kaddu muy man muy ñiy ñëw ak foo ko mën a jëlee rek ci yonent bi lay dellu ngir ñu bëgg yonent bi mbokk yi mbaa xam ngeen képp ku bëgg yonent dinga baax ndax boo bëggee yonent di nga ko niru bon ku baaxut doon julit xoolal ndax yow bëgg nga yonent bi sallallahu alayhi wa yow mi mënut a supporter nit tooñ la delul ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn waay fekk na ko muy jàpp wala muy sangu wala muy naan ak lu mën a xew mu tiim ko ak jaas yi ne dinaa la rey yàlla dugg seen diggante waa ji loxoom di lox ba jaasi bi daanu yonent bi for ko ne ko kan moo dugg sama diggante ak yow tey mu ne ko xanaa sa mbaax bon julit képp ku la mën a tooñ bu la saaga ak lum la mën a def baaxal mbaax gi yonenti baaxoon nga baale yonent bi toog na ak ay saxaabaam ñii nee nañ tanarma la ñii nee nañ wajj la mooy yàpp gu owal arab yi dañ koy lekk a ah, mu jël morsu bi bëgg lekk xool Aboubacar jox ko ko Aboubacar bëgg a lekk xool Omar jox ko ko Omar jox ko Ousmane Ousmane jox ko Ali ba morceau bi del siwaat ci yonent bi sallallahu alayhi wa loolu mooy doo gëm yàlla lu dul li nga bëggal sa bopp nga bëggal ko sa mbokk loolu nag est-ce que feeñ na ci kilifa yi jiite politique gi wala kilifa yi jiite diine gi bu ji loolu amoon ku ne dinga nga maandu ci sa moroom te xam ne lu ko yàlla war a may kenn mënu ci dara li yàlla may kiit kenn mënu ci dara loolu dellu ci yàlla senegal am jàmm Sénégal nag li Baye waxoon mu ngi dund ci keppaar ak yonent Yàlla Muhammad te waaw Baye booba gëm naa ko bu leen tiit mukk ba foog ne Sénégal dina mel ni Soudan wala Sénégal dina mel ni libi ci xeex gu mag gu mën a yàq réew mi doo am bu naree am képp ku ko fi andi moo xam ki jiite réew mi la muy pouvoir moo xam kiy uut ñiy uut pour jiite réew mi ku jóg ngir yàq Sénégal yàlla dina orienté sa xalaat orienté sa wax orienté sa jëf ba nga jógee ci Sénégal waa nga jot Sénégal ci jaam loolu yàllaa ko def ci Sénégal yàlla yàlla sàmm Sénégal yàlla yàlla aar Sénégal yàlla yàlla kawel Sénégal yàlla mën na ko te yàlla dina ko def maa ngi nuyu suma kilifa yi boo gisee njëkkeewu ma ci moom yonente bi sallallahu alayhi mooy kilifa yi ñëpp bàyyi radiallahu anhu dafa seeyal jëmam ci moom ba amut te comme moom la ñu jagleel bés bi ma ne ci moom rek laa mën a njëkkee waaye maa ngi leen di ziyaare ci wax bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne man allamaka harfan fa huwa mawlaaka ku la xamal araf mooy sa sëriñ mooy sa sàng loolu moo tax bi may wax maa ko mag ci ay at waaye mooma mag ci daraja ma ne ko sëriñ bi may ma ndigal mu ne may naa la ko loolu dafa war bépp taalube ci sëriñam maa ngi lay ziyaare ci sa buntu maam Maolana Cheikh Ahmed Dame Ibrahim maa ngi nuyuwaale mbooleem fami Maulana Cheikh Ibrahim ñu toog ci jataay bi waaye maa ngi beral nuyoo suma xarit al oustaz Barham Seck nga xam ne la yonent boon xayru naasi anfa'uhum li naas ka gën ci ni ñi mooy ka gën a jëriñ nit ñi Barham ci jëriñ nit ñi rek la dëkk loolu moom lay ab nuyoo ko Abdou Ndour fay ak Abdou juuf ak Aliou ñaan ak ñoom maasak ñoom ñi mu àndal ñëpp xam nga politicien jëriñ jaami rek moo tax mu jóg foog loolu ñu nangu ko bu courant bi coupé woon bu takkoon ci réew mii maa ngi la koy ñaan monsieur le nga gën ci bàyyi xel bu courant takkoon ci dëkk bi takkoon na feyaat yaakaaruñ ci sëriñ bi lu dul mu ñaan wala mu woo monsieur le politicien bi mooy ñëw taalal la sa courant bon kooku dugg na ci xayru naas moo lay taalal sa ndox dugg na ci xayru naas moo lay dimbale bu caabi féetee sa gannaaw ñu bëri bu ñu amee problème dinañ ma woo kan lañ yaakaar ma woo politicien bi bon kooku daa war a xam boppam nan lay xamee boppam li ko yàlla dënk jaamu yàlla yi di daw ci ñoom di ko jël de ko abal benn tur muy al nguur nguur googu nag mën na ci dugg ajana waaye nguur googu mën na ci dugg safara maa ngi ñaanal ñëpp yal nañ ci dugg ajana lii Abdou Ndour wax fàttali ñu ne ñun ay béykat lañ kooku mu ngi lay fàttali li ko li la war waaye mu ñuy fàttali li ko war ndax tey ci moom la ñuy xaar jiw ci moom la ñuy xaar engrais bon loolu nga fàttali it ñu ngi lay fàttali soxla nañ jiw ak engrais yàlla na la ko yàlla yombalal ci taxawaay bi nga am ane nga fi ceeb bu bari macha allah. yàlla yàlla barkeel loolu mu wax ko taalibe yi ah, maa ngi nuyu pare yi docteur Tanig Sène ak abdu Diouf xam nga bu ñu tuddee làmb nga dem ñu tuddee la gitaar nga dem politique moo laaj loolu force la ñëpp nga soxla buñ la tuddee gàmmo xamulu xew innal xasanaat yuzhibna sayiat dañu ne lu ñaaw lee nga am kaa ñu jox la lu koy raxas politicien bu xam loolu nangu pare gamu yi nangu pare ñee ndax yaa soxla lii da lay effacer lale bon ku leen tuddee gamu rek da leen dimbale ci lu bari abdu nag daa bokk ci dayra bi moo tax ñu tanoon ko rafetal nga matal nga te li Ali wax xëj na am na lu ci des damaa toog sama nekk ma woo ko ne ko demal nga politique yi demal nga ànd ak Macky Sall man maa ko man kooku foog nga ñaanal ko yàlla ma ne ko yow jëlal yoonu politique nga dem politique see nga Ali demal nga nekk journaliste tey ci loxoom yóbbu ko Babacar Diouf ne ko kii damaa bëgg mu nekk journaliste mu ko farlu ku neex a puus tey jigéen bu ñu doon war journaliste yi moom ak sama xarit Cheikh Adramé Diop dëgg dëgg dinañ leen tudd yàlla yàlla kawel leen man dinaa des ci diine gi la des nag man day formé naa ay sëriñ yu bëri Abdou na ngeen former ay politiciens yu bari ak ay journalistes yu bari ndax jigéen pour mu kawe foog lépp loo doon muy lu baax na nga fexe am ñi la ci raw boo demee ci sama gannaaw di nga fekk Cheikh Babacar bu gamu woon ñëpp daanu te loolu laa bëggoon ci moom def naa ko ci moom man na ko boo delloo sama gannaaw di nga fekk Imam Malik bu tafsiree nga kontaan di nga fekk Mohamed Sène bu conférence nga kon kontaan macha allah di wekk Moussa Ndiane ak Babacar Diouf ak Cheikh Latir ak soow ak Ndour ak al muqadam Ousmane Sarr loolu mooy boo nekkee ci lu baax doon julit da ngay fexe nit ñoo lu baax loolu nga am ñoom ñu nekk ci loolu nag maa ngi ñaax képp ku nekk ci jataay wi ak foo mën a dëkk na nga fexe ba baaxal ndaw ya fa nekk ndaw yi baaxee adduna bi baax su ndaw yi bone adduna bi bon jamono bi ndaw yi ñoo koy baaxal walla ndaw yi rek ñoo koy yàq ndaw yi ku nekk bu Sénégal di seen loxo am leen xel am leen xam-xam am leen jikko yu rafet nekk leen ay julit nekk leen ay taalube nekk leen ay nit ñu am fula ak fayda loolu buñ ko nekkee suñu Sénégal gii fuñ bëgg mu egg ndaw yi dinañ ko fi eggale yàlla na Sénégal kawe maa ngi gërëm mboole bi teew manuma waaye ku teew bëgg yonent rek gërëm naa la képp ku teew bëgg yonent gërëm naa la ay di bamba maa ngi lay ziyaare bu baax ku baax la wallaay jataay bee ci xejut ñëpp wax rek waaye bon dañ ko wax bëgg naa tudd ñëpp mais mënuma ko magu taalibe yi gis nga sëriñ du nekk sëriñ mukk te amul taalibe waaye taalibe du nekk sëriñ te amul sëriñ ta sëriñ du nekk sëriñ te amul taalibe mais taalibe du nekk taalibe te amul sëriñ su boobaa ñun dañoo war a dimbalante suñu biir gis naa seen taxawaay yàlla leen yàlla fay bàyyi naa leen ak Cheikh Ibrahim mu yóbbu ko yonent yi moom bes bi mu fay leen sama waa ker samay doomu baay alaaji Moustapha Guèye dama ñëw fii fekk manuñ dara su ma leen waxoon lañ ko joxoon ngeen xam ne ku bëgg yàlla la du dara bi ko oustaz Barham Seck waxee ak Makhtar Sila def ma ne dinaa ñëw pour ñaanal la yàlla dinaa ñëw pour dimbale la waaye dinaa ñëw pour bokk ak yow jotaay bi mu ñëw waxtaanal ñu ay nit bëgg ci yàlla tuub du benn nit ñu toog jamono ñuy waxtaan mu ne ah yow day ku baax la ndax tax ay nit jaar ci sama loxo dugg ci lislaam walaay pour ngeen xam góor gi ku baax la gane si na ma sama kër seese xoolal loolu kooku num tollu ci yàlla Cheikh bi nekkul dara walaay ak ma ci sama dund digal na ma ñetti yëf su may dox sax dama ciy bàyyi xel dama ne ah sama doom maqaama bu ko mos a xicc mukk ay ku ko xicc rek bu la dikkalee nga dee su fekkee moo moo ko wala loolu ndaw ma ndaw yi léegi dañoo bëgg gaaw a mu ne ay bu ko xicc soo koy xicc bu su ñëwee te moo moo ko nga faatu mu ne nekkal ci li nga nekk te rafetal ko yàlla dina la jox lim lay jox rek mu ne bari na koy feeñ feeñ lu ba fara nëbbu mu ne xam nga nan lay nëbboom ma ne ko déedéet mu ne ko day dee ñu suul ko rek kenn du ko gisati mu ne ma xam nga kañ ngay toog te doo amati noonu wax ju neex xam nga kañ ngay toog ba doo amati noonu maa ngi yàkkam lu foog ne daf may ne soo amee nanga mi at wala boo jàngee lii mu ah soo dee rek ñëpp bëgg la dama nga gis ko dee ñu seedal ko lu bon ma ne ah déedéet mu ne ko ñëpp koy bëgg ma ko ah papa lu tax mu ne xam nga li tax dañ koy bëgg ndax kiñaan amatu fa kiñaan day amatu fa ndax balaa ngay iñaanee nit mu nekk fa fiiraange amatu fa xiccoo amatu fa moo tax ku dee daal ñëpp ku bëgg amul noonu radiyallahu anhu yàlla na ko yàlla taas ci barkeeg yonent yàlla muhammad may na ko sax góor googu moom lañ defal rendre hommage foog na noonu la ci tubaab mooy fàttaliku ku baax ngir ñu baax ñu ngi lay ndokkeel bii bi Maxtaar yàlla la yàlla kawel Cheikh Ibrahim suñu soppe dina ñëw léegi ci kanam def conférence lii wallaay mënuma ko war a wax Abdou Ndour jërëjëf ci parrain bi nga jël tuddee nañ la ko waaye jël nga loo xam ne incha allah balaa déwén di nga gën a kawe ci barke baay ak baayam yàlla la yàlla dimbale ci loolu ndax mbëggeel nga ko waxee mbokk ci yàlla bëgg naa tudd ñëpp mënuma ko waaye maa ngi ñaanal suufu senegal yàlla nañu yàlla may ay Moustapha Guèye yu bari te bu ñu ko may may am nañu ay Cheikh Ibrahim Maolana Cheikh Ahmed Dame ku baax kooku ku sell kooku ku yi yàlla nañu yàlla may ay jikkoom benn laa ciy tudd ñu yóbbaale ko booy jow ba ñëw ci moom dana ne ah, xaaral ma woo ko nga wax ko ko aman doo jëwati xaaral ko ko nga wax ko ko kooku ku baax la yàlla ñu yàlla tas ci barkeem waa ñoomar jigéen yi góor yi yàlla yàlla fay leen walaay ak ñoo góor-góor Cheikh bindal ñoomar def nañ la ëpp million ak lu teg lu jege tuuti deux million ñoomar kese cotisé nañ ko ci gàmmu gi ñoomar rek léeg-léeg dinaa gis nit ñu bind turam ma ne ko ah ah ban waa ji bëgg na lu baax di yowmal qiyaam ñu bind sa tur ne gi def nga ci junni fa man yaamal misqaala darratin xayran yara loolu rëy na de soxna Thiaba macha allah gis nañ li nga andi yàlla na yàlla dimbali ñu te kawel ñu yàlla na yàlla baaxal ñu te bëggaloo ñu yonent maa ngi ñaan suñu joxe sëriñ bi mu tëj na ñoom seen waxtaan guddi gi lay doon day ñaa tëj rek ñu dem reeri ñun ñëpp ñëwaat ndax guddi na lii laa bëggoon a yëkkati ci ay kaddu maa ngi gërëm journaliste yi ñu baax lañ yéen a yor mi ci yonent bi lépp day jeex ba mu des li ngeen fi bàyyi maa ngi leen di ñaanal yàlla maa ngi ñaanal soldaar yi ma muy waa sababul fayda waa sabilu salaam ak sabab yi nga xam ne ci ñoom la ñuy roy waa croix rouge ñu ngi leen di gërëm waa service de jeunes ñoo fi setal dëkk bi a ah, waa ndox seen o dimbale nañu ndox gaaw a ñëw ci kër gi maa ngi gërëm mboolem ñi jàpp ci bés bi xataa waa gendarmerie ñu ngi toog di xaar te yàlla na duñu dégg mukkaay te incha allah duñ ko dégg maa ngi leen di gërëm maa ngi gërëm mboolem service yi waaye rawatina maire bu sesen ak maire bu caajaay ñoom jàpp nañ ci bés bi bu baax maire bu Césaire yónnee na oto ak ceeb bu bëri ñu ngi koy ñaanal yàlla di ñaanal ay rakkam di ñaanal it parti politique yi fi ñaar waa Pastef ñëw nañ ci ngo suba si maa ngi leen di gërëm di leen ñaanal waa PDS ñu ngi fi woon léegi ak waa docteur Abdourahmane Diouf ndax ñun ñëpp lañ njaboote waaye ñoom ñëpp maa ngi leen di wax ne bàyyi leen yàlla rek mu dogal te ngeen ut utin gu rafet yàlla jox leen. yàlla yàlla samp yal na yàlla aar la képp ku jug pour yàqal la yal yàlla téye ko galgal ko yàlla rek moo tax ngay def bu ragal dara laa tax xaaf wala taxsan inna allah am parce que dëgg boo ci nekkee bu ragal si réew mii mii Sénégal ñi ngi ñaan yàlla yal yàlla def ci jàmm yal yàlla def ci jàmm lépp loo xam ne ñi ngi koy fii tiit yal na yàlla dalal Sénégal comme ni ko